maam Cheikh day biñ ko laajee ne ko waaw ndax wàllu yu moom bu dee xale bu tuuti ndax dana xam ne wàllu yu la mu ne waaw boo jubee mbooloo nga dégg malaayka yi naan jóg leen xajal wàllu yu yàlla wooy agsi nga agsi rek ñëpp jóg te duñ ko sañ a bañ da xam ne yow wàllu yu nga am <laughs> na ñu ko déggul dañu ne am yoo xam ne bëgguma ko wax de yéen a ngi may forcé de dañu ne dama yàlla baal bu mu nekkee xale bu tuuti xamul dara buñ ko masaan génne ci biti dañ koy muur ndax bu masaan téen rek day seen arraché kursiyoog li ci kaw lépp te du xam lu mu doon muy jooy ba buñ koy génne dañ koy muur day na bokk na waaye waaye sarax leen ma ngir yàlla ma ne nee na boog bi nga xamee ne mi ngi nekk xale di jàng alquran daf daan fab mbubbam di ko muur ci boppam ñu naan ko yow sa bopp bi lu ci nekk mu ne booba dama àgg fa góor yàlla ya ak nga xam ne seen bopp kenn waratu koo gis war a kaalawu te aw ma kaala moom moo tax bi mu fi dundaatee juróom-ñaar fukki at ak ñeent mu ne fa billaahi jaawastul maratiba kullaha wa min bahri zatillahi nahdi wal allu jeegina maqamay goor yalla yep ci geejju jëmmi sun borom tabaaraku taala lay naane sama naan bu njëkk ak sama naanu ñaareel doy na ngeen li desati ne do lol duma ko wax waaw baax na daal oh, doy na doy